parce que euh, ba mu naan je vous ai compris oui d'accord c'était Ousmane Sonko Adji ou la conscience collective pense que c'est un complot politique parce que dafa am ay antécédents. ou c'était le Covid. Euh, mais mais mais c'était aussi sa troisième candidature que que personne non soulevé non ko laisse-moi terminer moom nee na bi l'honorable euh, Biaye nee na dafay wane ne seen coalition bi dafa am démocratie mais ana Maître Moussa Diop il a été défenestré Souri Kaba. ainsi de suite ñëpp ñi nga xamante ne waxoon nañ ne d'accord ñu dàq nañ leen. où est la démocratie pour dire pour dire pour dire aussi que cette question de troisième candidature ne date pas d'aujourd'hui voilà léegi euh, bokk nañ ñun jàpp naa ne ci dëkk yi nga gën njëkk ci Afrique même ci àdduna bi ah est-ce que xam nga ne Sénégal moo njëkk am limitation des mandats de France. Mhm. en 1970 d'abord avec le président Senghor on avait instauré la limitation des mandats ñu remettre ko en question en 1976. réintégré waat ko dans la révision constitutionnelle d' octobre 1991. supprimé waat ko en 1998 pour président Diouf mën a présenté wu. président Wade ñëw sur la base d'une nouvelle constitution. mu dugalaat ko en 2001. mais gis nga stabilité constitutionnelle boobu noonu yëpp moom bokk na li tax président Macky Sall ne nañ trouver un mécanisme boo xamante ne ce débat là ne va plus se au Sénégal. et là il a la le professeur Ismaïla Madior Fall pour. quinze points ñu euh, réformer une pour toute la démocratie ci 15 points yooyu noonu le professeur Madior a raison de dire révision consolidante record parce que musul am référendum bu am 15 points Sénégal hmm. et c'était la deuxième fois de l'histoire politique du Sénégal qu'une révision constitutionnelle passe par référendum en 2018 2016 2016 2016 référendum. 2016 la woon. maintenant euh, ñu intégré ci ay clause d'éternité le mode d'élection du président la durée du mandat la limitation du mandat ne sont plus susceptibles de révision donc il veut nous euh, faire comprendre que le professeur Madior Fall a quoi parce que dina ko woon bu débat bi amati débat bee ngi nii et que le professeur lui-même qui avait répété trois fois vient de nous dire que ni c'est plus mais une question politique. Mm. suñu amee euh, deux millions de xawma lan donc voilà li nga xamante ne moom moo tax sénégalais nekk ci interrogation parce que moom kaawam ak kaaw président Wade bokkul woon président Wade est venu nee naa la permutation malade dañ ko supprimer à 98 donc président Wade est élu sur la base d'une constitution qui limite pas les lui bi mu fi toogee ba léegi limitation mandat mi ngi fi ñu bëgg a jeexi jaaxal xelu nit donc euh, yooyu noonu bokk na ci li nga xamante ne interrogation yooyu doute yooyu noonu citoyen bi di àndal à cela s'ajoute la précarité coono askan wi nga xamante ne dialogue politique bi ñuy wax kenn waxu ci waxul euh, dund bi. kenn waxul waxu paj bi. kenn waxul waxu jàng bi mais les termes ne sont pas encore définis. non sont définis sont définis. Hmm. les termes sont définis par Barthélémy Dias lui-même il dit que ni moom moom moom dialogue bi te nee lii la fa yóbbu.